jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy topp ci Bawal TV eh, premier seen di Bawal nuyuwaat nañ leen bu baax jaar leen gërëm leen ñaan leen jàmm am mbégte ak kontaan bu baax a baax euh, comme ni ñu ko ànd ak ba ñu xëyee ba léegi ci bis bu tedd bi nga xamante ne ñu ngi koy dundal ci ay pàkk yu fasanti ko ñu ngi fii ci janatul maxwa kër sëriñ xal Xalil Mbàkke moom sëñ Moustapha Absa moom it euh, di dundal bis bi at mu nekk ànd ko mboolem ñu dëkk fii ci gox bii di janatul maxwa ginnaaw bu ñu ko nuyoo ziyaari ko ñu ngi koy bàyyi mu nuyoo rek eh, ñu waxtaan ak moom. Mm. waaleykum salaam wa rahmatullah leen di nuyu yéen mbokk yi Baol TV di ko jaarale ci yoon yi fi ñëw ak mbooleem ñi nga seqal liggéey bi ñu ñaanal yàlla defal leen ci taw tawfeex incha allah. jërëjëf bis bi nak di bis bo xamne ne bis bu mag la bu tedd bu am ay ngëneel waye di bis bu jara magal, bu bëri ay njariñ ñu bëggoon rek nga baaxee ñu ci eh, ay waxtaan yo xamne dinañ ci mëna jariño ci ni dundale bis bi ya bis bi da mom moy bis bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gane aduna bis boo xam ne itam jullit yépp ñi nga xamne am nañu ràññee la jibla wax su accès danañ ko fonk baax dañ ko yamale ak yeneen bisitam ndax ki nga xam ne moo tax yàlla bind lépp mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la gën a àdduna moo tax kon bu accès julit yi nekk ci àdduna bi yëpp di ko màggal ci jàng alxuraan ak def ay bernde ñu dee ci tuuba ak murid yi ñu di ci jàng xasaayit xasaayit yi nga xam ne dag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak di ci fàttali ay ngëneelam ak ay jikkoom loolu daal mooy ni nga xamee ne noonu lañ ko baaxoo defe ci ci fépp waaye rawatina nag ci murit moom dañ ko sëj yi moo joxe ndigal ci ñu fonk wax ci ay ngëneel yu bare bare yi yoo xam ne ñu ngi ci ci koy màggal ba demee ci xasida gi ñuy wax na ci lu bari ci koo xam ne yaa ngi koy màggal xam le ne na ku ko def da nga ci gis ak yokk ku koy defee ci sa kër dana la aaral sa kër ku ko def itam maanaam mu waajal ci ay berne ci ñi koy ñi koy ñuy jàng wala yu mel noonu incha allah yàlla doon la ci defal tawfeex ak yu bari yoo xam ne xam naa du yaatuñu mën koo leeral daal ci jotaay bi waaye bis la bu màgg daal kon sëñ Xalil noonu la koy dundale fii ci janatul moxwaa euh, di ko ànd ak waa janatul moxwaa bis bi lan lañ ci mën a xaar ci dundal ko ci fii ci kër Sëriñ Xalil gi waaw kay waaw bis bi fii moom Sëriñ Saaliw mooy joxoon ndigal ci ñu di ko màggal bu njëkk fële ci jumaa ji lañ daan dem di ko fa defe waaye benn bis ñëw ci kër gi fekk mu mu indi fi aw nag bi ma demaatee gis ko itam laaj ma ndax jot nga ci ma ne ko waaw nag man ci laay daal di jàngate ne ku la jox aw nag daf laa gàmmuloo boobu nag laa ko tàmbali ba léegi at mu nekk fii ci kër gi lañ koy defee waa quartier bi yëpp it ci bari dañuy ñëw di ko ànd ak ñun di ko di fii léegi kon day mel ni def na fukki at ak juróom nangam ndax boobu def naa ko ak sëñ bi lu mat ñetti at bu fi ñu jiwee léegi rek wala fukki at ak juróom kon day mel ni yàgg dañ ko fay def daal nga xam ne ñoo ñu seetaan te dëkk ci gox bi te yàlla mën naa dogal xamuñu woon ne sax ñu ngi koy woote fii kon mën nañoo jàpp ne daal bis gàmm képp ku ko bëgg dundal ci jantul Mahwa mën ngaa ñëw fii ci kër Serigne Khalil ànd koogu ma. waa ci wet gi ñu dëkk ci sama wet. waaw xam nga janatu dafa yaatu fële ci jumaa ji dañ ko fay màggal. comme ñu dëkkee foofu moom foofu lañ koy màggale jumaay janatul maxwaaj waaye li nga xam ne moo jëm soow nii mm, dend ak man daal di ci ëpp fii lañu ñëw di ko fi màggale waaw loolu ñu ngi bëgg a yàgg dina waaye bu ma tàmbalee ba léegi ñëw fanaan daanaka yi itam ñi nga xam ne ñu aju ci sama ci man daara ji te jóge fi foofu moom ci daara ji lañ koy màggale muy daara ji sama daara ji di Daaru Rahmaan donc foofu lañ koy defee ñu bare bari ña nga fa eh, waaye ñi nga xam ne ñoo dëkkee Touba ak dëkk ak man daal ñooy ñëw di ko di ko di ko di ko defee fii daal waaw ah, <coughs> <coughs> ah, kay xanaa di leen sant bu baax rek. di leen yóbbante ay cant ci kilifa yi ñaan yàlla defal leen tawfeex seen télévision bi waaw jërëjëf. jërëjëf mbokk yi nga xamante ni yéen a ñuy wéy di topp ci Baol bi kon incha allah danañ ko ànd ak yéen guddi gi ñu ñëw dund xasaayit yi ñu fiy jàng ak benn yi incha allah ànd ko ak yéen kon wéy leen di ñu topp ci Baol bi lépp lu tukkee ci gàmm gi dinañ ko digtal jërëjëf. la première télévision d'Ibawal.